العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي إليك وجهت الثناء والشكر والحمد والرضا معا والذكرى لك بلا شكاية شكوري يا خير هاد نافع شكوري صليت بالتسليم عني سرمدا على النبي والرسول أحمدا غفروا ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a rafet te gën a sell te gën a matale diggante jullit ak moroomam di jiital ci nuyoo bi kilifay diine yi muy suñu imaam yi suñ borom teg suñ kanam di ci teg kilifay aada yi muy ñiy jiite dëkk bi ñu mel ni ñii ma toogal nii noo ngi leen di sant bu baax ci seen teewaay ndax yitte yi bari na te jamono xat na te wóor na ma ne kenn ku ne am na loo bàyyi lu la ñor lool ngir mën a wuy ci woote bi ba tax na ñoo ngi rafet lu jataay bi lool tey ñaan sunu boroom mu boole ko ca yam gën a gërëm bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam woote bi nag dara waralu ko lu dul ne damay seen mbokkum jullit mu bokk ak yéen sayyiduna muhammad sallallahu wa sallam ak lislaam di seen mbokkum taalibe mu bokk ak yéen cheikhuna cheikh ahmadou bamba di seen mbokkum dëkkandoo mu bokk ak yéen sunu dëkk bu tedd bi di taayif te jamono toll foo xam ne buñ dut fàttalente duñ soññante duñ ñaaxante ci yii ñu bokk mën nañoo jural ay wuñ dul mën a fayati wala fay ko lu jafe lay doon te wa dakir fa inna dikra tanfau lmuminin sunu boroom moo wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko dee leen fàttali ndax dina jariñ jullit bi te nit ki yàlla da ko mooñaale fàtte baatub insaan di firi nit mi ngi jóge ci baatum nisyaan mi firi fàtte kon nit ki faw ñu di ko fàttali li ko war te sunu jamono ji da cee raw te kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku ne ab sàmm la te def na ko laaj nu mu wattoo woon liñ ko dénkoon te kenn ku ne liñ ko dénk mooy la ko sunu borom yilifloo kenn ku ne kon am na waar ci tool bi woo xam ne war naa fexe ba du booy te defu ko ruur mbokk yi umpalewu leen li xew léegi xool leen jikko yi ni ñu yàqoo nit ñi dañoo nuur ci mbon ba àgg ca ndett la gisatuñu déggatuñu lu kenn mësta xalaat ngay gis léegi seetlul yàqute gi ci xale yi réer gi ci jigéen ñi càggante gi ci mag ñi umpale gi ci waajur yi ceetaan mi ci kilifa yi li xew léegi kenn xamul lu mu sàggane sa diine doyadal sharia sa bakkan gëlëmal la nga topp sa bànneex lu la neex def nu la neex doxale woyofal ndigali sunu borom yi faale ay tereem bàyyi woo xel nit ñi rusoo kenn joxoo cër kenn wóormaaloo waajur wegoo kilifa yërëmoo ndaw ñàkkub yar ba tegoo kenn fenn ku ne nga mën koo wax lis mënta dégg bëgg àdduna ba koo tane jàpp ne doo moroomam ñàkk yërmande ba koo ëpp doole jaay ko ñàkk sutura ba koo xamal sikk wax ko ñàkk doylu ba koo mën a nax def ko ñàkk faydaak ak fulla ba loo gis roy ko doo xalaat ba xam lu lay jariñ la wala lu lay lor la jombalewoo sa bopp dara sàggane àq waajur àqi doom àqi borom kër àqi soxna àqi dëkkandoo nu la neex doxale ak ñoom mag ñi sóoraaleetuñ xale yi ci li ñuy def ak li ñuy wax di defante yu ñaaw ñu di leen gis ñu di ko waxante ñu di leen dégg waaw njabootug ñii fan la ñuy jëlee royukaay seetoo yàlla ci ni ngay wute alal noo mën a amee baax na xooloo lu dul sa intérêt bopp faaliwoo li nit ñi di dund di añaane sa morom lu mu am nga ne yeyowu ko nu mu mel nga ne day ngistal du dëgg ci moom jël sa wax waxtu yépp sànq ko ci lijjanti mbiri jàmbur di fénqali kilifa yi di yàquk bokk di tas njabootuk jàmbur kuy siyaare ji sax ab sëriñ te sëriñ Tuubaa rekk tax nga ne ni mu saytaanee buntu kër bu ne danga ko fa gis boo ko gisul ci sab sëriñ ne da koo bañ jubluwu ko koo gis muy dem doo ca topp dem ne moom xanaa di ko gàllankoor siqi benn jéego te kuy dox nga fakkastal ko doo defar mukk xanaa di jàmb rek lu kenn mën mësta xalaat ne dina am mi ngi am lu kenn mësta ñeme ñi ngi koy def ba noppi di ko jéem a layal fi ñu yaakaari ndimbal ñooy jalgati fi ñu yaakaari sellal ñooy nëxal fi ñu yaakaari setal ñooy taqal lu mat a tiital la ñuy dund léegi mu di ñu xalaat ci ëllëgi njaboot gi di ñu xalaat ci ëllëgi société bi di ñu xalaat loo ci ëllëgi réew mi bokk yi yii yenn rekk la ci xew léegi ndax kenn munuta wax lépp ndaxu yéeme ba jéggi dayoo boo dee xool tey xalaat dangay mujj jàpp ne nit ñi dañoo foog ne yàlla amul wala bés penc du taxaw wala yàlla day caaxaan rek ci li mu dële ak li mu dige wala taxsibanna allaha gaafilan amma yaamalu zaalimuun innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fihi l absaar bul jort mukk ne sunu boroom dafa amul soxla ci li ngay def dafa fekk rek ne sàcc bu du raw jërte yàq yi nelaw wutal na la ab ab boo xam ne du jaas mukk falaa taxsibanna allaha muxlifa waadihi rusulahu inna allaha azizun du intiqaam te xamal ne sunu borom ku respecté rendez-vous la du ko wuute mukk te ba mu waxee iqtarabati saatu yàgg na te inna saata la aatiyatun laa rayba fiha li ci gën a yéeme mooy laa taatiku mooy illaa baxtatan sunu borom xamal nañu ci alquran ne waxtu wi mu fiy jële jaam ñi jege na te kenn mënta te mu agsi te ñépp lay bett bokk yi war nañuy wéet léegi-léegi di xalaat ëllëg di yowmal qiyam ak yafay fay xew muy njàqare ya tiis ya tartar ya te lépp di dëgg ndax sunu boroom a ko wax te lu mu wax dina ko def inna allaha la yuxliful mi'ad dina nu jariñ tamit ñuy xalaat sunuy bàkkaar sunu digganteeg sunu boroom di xalaat àq yi ñu ameel sunu moroomum jàmm di xalaat ne bés dina ñëw ci diir bu gàtt ñu gas am pax ba mu xóot ñu ne la ci yomm daldi suul wan la gannaaw te bul yaakaar mukk ne boo deeyee rekk jeex na dootoo yëg dara sa biir bàmmeel aha balaa ñala suul di waññeeku malaaka mi dina la delloo si sag ruux ba bu nit ñi di jóg di la wan ginnaaw ngay dégg seen keppat keppati dal nga xam ne say bokk ñoo la indi fii ba noppi di dellu seeni kër wal maytu min ba'di insirafin yasma'u qar'ani alihim ida ma tuqra'u Sëriñ Tuubaa ko wax de waaye ñoom ca seen yoonu kër ña nga tàmbalee waxtaane seen mbiri àdduna yow nag nga tàmbalee jànkoonteeki jafe-jafe yu kenn mënta misaal muy xataayu yu bàmmeel lëndëmaay ba tàngoor wa ñaari malaaka yi lay seet si muy munkar ak nakiir nga xam ne kenn mun laa misaal ni ñu mel kenn mun laa misaal ni ñu mel ndax raglu gu ëpp buñ lay xool seen bët yi day mel ne melax gu fëkk bu ñuy wax ak yow seen kàddu yi day mel ne ak dënu seeni gémmiñ di génne ay ferñent ni ko Sëriñ Tuubaa waxe sawtaahuma ka mithli raadin qaasifi aynaahuma ka mithli barqin xaatifi yaxruju min famayhima mithlu sharar inda muxaatabati masuli l bashar te ku yàlla bind ragal ngeen ba ci malaaka yi seen bopp sax dañ leen ragal kon nag rawatina ko nit wa kullu xalqin minhuma qad xaafa xatta almalaikatu la xilaafa sa tiitaange bu boobaa mi ngi aju ci ni nga nekk woon fii ci àdduna boo fi nekkeeg lu neexul yàlla sa tiitaange kenn mënu ko xiyaas te ay mettit ak i tartar nga fay nekk ba yowmal qiyaam mbokk yi war nañu xalaat léegi-léegi ida zulzilati lardu zilzalaha fa fazia man fi samawati wa man fi ard illa man sha allah bu suñu boroom joxee ndigal israfil mu wal bëft bi wal gu njëkk ga suuf si dina yëngutu yëngutu gu jaaxal ñëpp ba lu doon dund dee ba mu des jibril mikail israfil ak azrail sunu borom digal azrail mu nocci ruuxuk jibril nocci ruuxuk mikail nocci ruuxuk israfil bu noppee suñu borom digal ko mu dee moom azrail muy waat naan yow sama borom bu ma xamoon ne dee nii la méttee du ma nocci ruuxu kenn ku la gëm nga war ci dégg ne kon segam dee noonu la méttee ci malaaka yi dina fi raw kon ci nit ki te nee ñu mettit wi benn karaw rekk di yëg bu nit kiy faatu buñ ko wàcce woon ci kaw waa asamaan ak suuf ñépp ñu daldi dee fa saasa bu bu malaaka mi di jël si sag ruux dina nuru lu simple lool te noppale ci ki lay xool ngay faatu waaye yow di nga yëg ciy mettit ba mel ci yow ne junniy at sallallahu alayhi wa sallam sax daana ñaan suñu borom mu woyofalal ko ko kon lu mat xalaat la bokk yi war nañuy xalaat léegi léeg wa axrajati lardu atqaalaha kal farashil mabthus bu sunu boroom digalaatee israfil mu wal bëft bi walu ñaareel ga gannaaw bu mu ko dekkalee suuf si dina gëq képp kuñ masa suul ku ne di pullet pulleti ci barat di daw taxamoo foo jëm ndax tiitaange rafle lool dara du tege ci seenu yaram xalaatal bu baax na ngay doone kenn ca ñooña sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha dafa wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko sang bi góor ak jigéen ñëpp daje te kenn sulut dara loolu dana doy war di sallallahu alayhi wa sallam ne ko bés ba tar na tar goo xam ne kenn du tala seetlu sa morom kon lu mat xalaat la bokk yi war nañuy xalaat léegi-léegi waxtu woowu nga xam ne boo gisee sa baay daw bu la sa baay gisee daw boo gisee sa ndey daw bu la sa ndey gisee daw boo gisee sa soxna daw bu la sa soxna gisee daw boo gisee sa mbokk daw bu la sa mbokk gisee daw ndax kenn ku ne jàpp nga ne ameel nga sa moroom àq te tey jii dina la ko fayiku te yow sa mbiri bopp rek doy la sëkk ci ñàkk xam noo koy lijjantee kon lu mat a xalaat la mbokk yi war nañuy xalaat léegi-léegi bu sunu boroom dajalee lum mas a bind ci benn barab ba adduna sosoo ba ni mu koy tukkale mooy yow ma yajma'ukum li yawmil jam'i dalika yawmut taghabun muy nit jinne malaaka yi rab yi raj raj loo bu metti munta weesu loolu lépp ne selaw kenn du wax dara du yëngu ngir ku ne daa jaaxle ci boppam ndax xamul fu muy mujj danga gis sax kuy ñaan sun borom tabaraka wa taala mu tabbal ko sawara ngir tiitaange lu tar ak xaar bu yàgg kon lu mat a xalaat la bokk yi war nañ xalaat léegi léegi bu boobaa ba ñu xëcc jant bi ba yuur yi di xeb-xeb bi ndax tàngoor ñii di lab ci seenu ñaq ñenn ñi di lafañ ngir tiitaange bés boobu mooy àtte ba diggante jaam ak boroomam diggante jaam ak moroomam lu waay masa def fa lay leere moo xam lu mu daan muy muy lu mu daan nëbb wala lu mu daa fesal kon lu mat a xalaat la bokk yi war nañuy xalaat léegi-léegi bu ñu tegee balance yi bay peese jëf yi ak fayantoo ba ak joo amel nit te baalu la ko fii ci àdduna noo mën a def ak foo mën a jaar danga ko fay ëllëg da gis kuy fay ba deseetul dara lu mu fayee te am na ñu mu ñu jël jëf yu ñaawi ñooña di ko ko sottil ba loolu mujj tàbbal ko sawara wala iyaadu billah kon àq yi lu mat a xalaat la bokk yi war nañuy xalaat léegi-léegi jahannama ak tàngooraayam ak xóotaayam ak ñuulaayam ndaxu tàngoor te jommul kenn ku du ku ko yàlla jommale ndax wóor na la ne bokk nga ca lu mat a xalaat la bokk yi war nañuy xalaat léegi-léegi jéggi siraat muy pont bi ñu gàcc ci kaw jahannama boole kook lëndam kërees te mënee su ko ñàkk jéggi te kenn ku ne na koy jéggee mi ngi aju ci ni nga nekkale woon yàlla fii ci àdduna ñenn ñi dañuy gaawee ne melax buñ ciy jaar ñenn ñi ne fasu naaru góor ñenn ñi mel ne athlète ñenn ñi di waaxu ñenn ñi di temp ñenn ñi seenug leer day mel ne piilub lampe batterie di waaj a jeex boole ca di maas léegi-léegi mu ne xuy ñu seqib jéego mu ne kamañ ñu taxawaat mooy yow ma taral muminina wal muminaati yasay nooruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñooñu bushreekumul yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha dalika al fawz al azim mooy tamit yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu unzuruna naqtabis min nuurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuuran ñooñu ma'waakum naaru hiya mawlaakum bisal masir ñenn ñi di raam léeg-léeg mu am ñu rëcc baras ci ko tàbbi ci sawara sa léeg-léeg mu mu am ca ñu jafanduwaat lijjanti ba tegewaat ca kaw dal di toogaat sant yàlla bu baax fas yéenee raamaat xalaatal bu ca ñan ngay bokk ci groupe yooyu ñu wax bokk yi jàmm bu ne war ngay bàyyi xel dee di bàyyi xel bés penc te yii yépp dara du ci jaas kon nanuy def ci sunu xel ne sunu borom moo nu sàkk te kenn moom nu te bokkunoo kenn xam suñ démb xam suñ tey xam suñ ëllëg wàcce ñu àdduna te dara taxul lu dul jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa bu doon muy lu war kenn ku ne ci nun te jaam te ñàkk jaamu yàlla amul kenn ku koy gàddul kenn te kenn du ko defal kenn loolu na leer ñépp kon ku bayul doo góob yaa ayyuhan naasu taqoo rabbakum mbokk yi nanu ragal yàlla ci di jëfe ay digalam ragal ko ci di moytu ay tereem lii rek moo nu mën a musal ci tartari bés pénc ak njàqaree ak tiin ma te bés bi doy na waar ba jéggi dayo bu la suñ borom wuññiloon ya fay xew won la ko dootoo lekk dootoo naan sunu borom nee na bés bii bu ne la woon kaay ñu dugal sa baay sawara dugal dugal ca sa yaay dugal ca say doom dugal ci sa mbokk yépp ak say xarit te nga mucc nga dal di nangu fa saasa bés bi kon lu lu jafee misaal la na mel kon ku réer walla ku yaafuus walla ku nar a alku rek mooy nekk ci li ko neex bu ñu waxee mu naan sëriñ bi mën na lépp wala samay mbir wekk naa ko sëriñ bi waaw ndax sëriñ bi nee na la wekkoo naa ko doo ko dégg mukk ci gémmiñu sëriñ bu mat sëriñ nee ñu sëriñ Touba mas naa wax taalibe yi ne leen ku gis foo xam ne mën na faa amee aljana te du jaamu yàlla na fa dem ndax fii fi man amu fi ñi ëpp ci taalibe yi umpule nan lan mooy morit ak lan mooy ak taalibe morit mooy ku nam ma àgg ci yàlla am ngërëmam taalibe mooy kuy sàkkoo àgg ci yàlla am ngërëmam sëriñ Touba dafa jóg dëgmal sunu borom tabaraka wa taala kon doon muridullahi bu wér waaye sunu borom joxañ ko Moustapha sallallahu alayhi wa mu dem ci moom kon doon taalibeem bu wér di ko liggéeyal di ko roy ci lépp ba Moustapha sallallahu alayhi wa sallam wammat ko teg ko ci loxoy yàlla dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun li samadi kon waxtu wi nga bëggee dem ca sunu borom tabaraka wa taala làq ngërëmam jóg jublu ko booba nga nekkum murit lii bu amul jërut wuyoo murit ndax doonoo ko waxtu wi nga jë ñëwee ci sëriñ bi jox ko sa bopp di fi sàkkoo àgg ca yàlla laq ngërëmam di jëfe ndigalam te mooy li yàlla digle di moytu ay terem te mooy li yàlla tere booba ngay door a doon ab taalibe kon ab murit mënta bëgg lenn lu dul yàlla ab taalibe tamit du nekk ci li ko neex kon nan ngay mën a yaakaare sëriñ Tuubaa di ko wuyoo yaakaar ci moom aljana ak mucc ci sawara ba noppi doo jëfe ndigalam doo moytu terem Serigne Touba mas naa wax ay taalibe yu ko siyaare si woon ne leen baa du ngeen yàq samab der ñu ne ko Mbàkke lu yàq sab der mu ne mooy fu ngeen dem di ma wuyoo te duñ leen seen mukk ca la neex yàlla kon nanu delloo njukkal sëriñ Touba te bañ a yàq ab deram ci di jaamu yàlla bu wér ak murite akuk taalibe du ak ñàng-ñànglu wala ak sagare wala ak telli telli du ay daanuy jël ak barim riir ab taalibe day jëfandikoo am xelam di xalaat ci li ko li koy jariñ te di ko jafe di xalaat ci li koy lor te di ko moytu di liggéeyal sëriñam te di ko roy sax ci ba mujj màndi ci sëriñ bi màndi ci yàlla dara du du la soxlaalati lu dul ñoom ab jël kenn du ko sàkku kenn du ko sos kenn du ko waajal leerug yàlla du daaneel kenn muy jël paaka di jamu du daaneel kenn muy buuru di dóor ak a dóore nanu nite te jëfandikoo sunum xel te ragal yàlla bu baax waalam bi anna al fawza laa yunaalu illa min attaqwa ala ma qaalu sëriñ tubaa nee ne texeg àdduna ak alaxira ci ragal yàlla rek nga ko mën a amee idi tuqaa miftaaxu kulli xayri faalam wa mixlaaqun li kulli dayri nee na ndax ragal yàlla mooy caabi bi ubbi bunti lépp luy jariñe mooy tëj tamit bunti lépp luy lore fa laysa yaati min siwaahu abada durrun wala nafon huna qul wa gada nee na ndax fii di àdduna wala fa ñu jëm di àllaaxira kenn du lore wala jariñe ku dul subhaanahu wa taala lii lépp di wax ju wér ndax sunu borom moo ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib boo ko ragalee dëgg dëgg ragal moom sunu borom tabaraka wa taala dina la woon bunt ci lépp loo dugg di la wërsëgal foo ko dut fooge dellu waxaat ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusran boo ko ragalee dalay defal ak jàppandal ci say mbir dellu waxaat ne wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zam lahu ajra boo ko ragalee dëgg dëgg ragal loo def ci sofaan dala koy soppil aw yiw defal la ak pay gu rëy goo jortul woon dellu waxaat ne inna alladina yaxshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir ñi ko ragal dëgg dëggi ragal da leen di tàbbal ci yërmaaneem ak njëgalam defal leen pay gu duun te mooy lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim daalika jazaa'ul muhsiniin li yukaffira anhum wa aswa alladi amilu wa yajziyahum wa ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun lu leen soob la ñuy am fa suñ boroom tabaraka wa taala te loolu mooy payug ñiy rafetal seeni jëf te njuum te luñ mas a def suñ boroom da leen koy soppil pay gu duun te gën fopp lañ daa def fattaqu allaha ma stataatum wasmau wa atiu wa anfiqu xayran li anfusikum kon bokki jullit yi bokki taalibe nanu ragal yàlla suñ kemtu lay kàttan dégg ay ndigalam te di ko topp te fas yéene sax ci lu baax ba faw ndax suñ bopp dong lañ koy defal képp koo xam ne nekk nga ci lu dul noona tuub ku tuub gu sell te fas yéene bañ caa dellooti mukk kon sunu borom ci yërmandeem jiyaatu yi dina la ko soppile aw yiw tàbbal la aljana te lu bàkkaar rëy rëy sunu borom mën na la koo jéggal boo ko tuubee tuub gu sel danu góor góorlu ci jaamu yàlla yi bu baax a baax te dëppale ko ak sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaamu gi nag nañ ci jiital julli juróom yi te fonk leen bañ leen a sàggane nee ñu sunu borom tabaraka wa taala julli juróom yi lay njëkk a xool ëllëg bu fekkee daa nga ko defee nim la ko digale woon du seetaat sa jeneen jëf dalay dal di tabal àjjana fa saasa waaye bu fekkee daawoo ko matale mu xool sa yeneen jëf te woor weeru koor di natt azaka ci alal ju ko mate aj màkka bu jàppande tey sant yàlla bu baax a baax ci xéewal yim nu defal te bañ a bew di muñ mbooleem natt bum nu teg te bañ a saalit baa ñu koy jiiñ kenn ku dul subhaanahu wa taala ndax moom ci boppam moo wax ne maa asaaba min musibatin illa bi idnillah amul dara luy dal ci kaw kenn lu dul ci ndigalam mu waxaat ne maa asaaba min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum wa illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha amul benn natt buy wàcc ci kaw suuf walla ci nit lu dul ne bindoon naa ne dina wàcc ca waxtu woowa wala dina dal diw ca woow waxtu Sëriñ Tuubaa leeral nu ko ne wa kullu ma axta'anaa lam yakuni yuridu an yusiibanaa fi zamani kadaka ma asaabanaa lam yakuni yuridu an yuxti'anaa min mihani lépp loo xam ne mooy nanu sunu borom daa bëggul mu dal lépp loo xam ne dal nanu sunu borom bëggul woon mu moy nu te ku borom teg nattu nga muñ ko lam la cay bindal ci wiiw moom rek xam na mi tool ndax yaatu innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi ahsani bi gayri xisaabin ki yàlla defal xéewal mënoon na ko koo xañ ki yàlla teg nattu ak lu metti metti mënoon na koo teg lu ko yées te kenn du ne ko lu tax kenn ku ne kon war nay xalaat ci ni ko suñ borom melal ak lim ko defal ci biiri moroomi jaamam yow mi am ana loo gëne ki ñàkk yàlla la neex mu may la muy xéewal ci yow yàlla la neex mu xañ kii muy nattu ci moom mu am lu ca suñ boroom jublu loo xam ne moo gën ci moom ci bokk ko tegul woon yàlla du def dara ci neen ana loo defal yàlla yow ba tax mu may la dara boo seetantalee sax di nga xam ne bu doon fayantoo ak yow toroxal la kon dara warul leen lu du jaamu ko te sant ko yow mi wér war ngay xalaat ca ña tëdd ca hôpital ya ñii ña nga wékk seeni tànk ñii mënuñoo toog ñii mënuluñ seen bopp dara lu ñuy def des leen koy defal ñii di xaar dee ñii yor tawat yoo xam ne du wér mukk ñii di wéyale mettit woo xam ne leer na leen yàggatul suñu borom jël seen bakkan waaw ana loo gën a ñii yow ba tax suñu borom boolewula ca ñoom dara yàlla la neex mu wéral la muy xéewal gum la defal yàlla la neex mu teg leen ko muy nattu ci ñoom ngir lum leen koy wotteel kon dara waru leen lu du jaamu ko te ko ñaata yoon la leen ay néew romb jëm ci armeel ñaata yoon ngeen taxawu bokk yu fi bàyyi ko ñaata yoon ngeen jaale seen moroom ay way dawlu ñaata yoon ngeen demi dëj ana lu ngeen gëne ñooña ba suñ borom jëlu seen bakkan ne ñoom dara xalaatal bu baax ci loolu te profitoo ci diir bi mu la fi bàyyee jaamu ci yàlla bu baax a baax te sant ko te xam ne loo fi yàgg-yàgg danga leen fekk yow mi yàlla defal doole moo xam ci sa jëm wala nguurug àdduna war ngay xalaat bu baax ci ñi néew doole wala ñi nga yilif ana loo leen gënee ba tax yàlla teg la seen kaw dara lépp coobare suñu borom la bu ko neexoon ci xefuk bët rek mu def la nga gën a suufee ci nit ñi gën cee néew doole kon àndale ku dal te jaamu yàlla te ko yërëm nit ñi ni la yàlla yërëme suturaal nit ñi ni la yàlla suturaale yàlla mën naa seetaan lool waaye buy saafara mbir mooy raw melax te ku mën a faj mbir te defu ko di muñ yàlla tax ku jara weg la yow mi yàlla def ay nit doy loola dénk la seen bopp war ngay xalaat bu baax ci ñoom yéen a bokk doon ay nit bokk ku leen meññi muy aadama alayhi kon am na luñ jàpp ne moom la la yàlla jagleel lu ñu amut muy xéewal ci yow ba tax ñu di la sukkal ak raamal di la liggéeyal di def sa bànneex lu ñu am yët la lu ñu jur jox la kon yow dara warul la lu dul jël sa dund gépp jox ko yàlla sa doole nga jeexal ko takk ci moom loo am def ko ci moom di xeexal lislaam foo toll di teg ñi yàlla booleel ci siraatal mustaqim ku ne la war nag waaye yaa ci raw yow mi yëg sa bopp ba jàpp ne yaa gën diw ngir li nga foog ne danga bokk ci yax bu dijj mu bokk ci yax bu sew walla yow géer nga muy laneen xalaatal bu baax da ngeen ni maase dijjle wala ngeen maase sewle ndax yéen bokk ku leen meññ muy sunu maam ñun ñëpp aadama alayhi salaam wa aadamu bayna al maai wa tin yanjali aadama alayhi salaam ci ban ak ndox lañ ko binde ngëneel nekkut cib yax wala askan ni ñuy natte am ndox wala diwlin cib liitar di natt ab guddaay ci meetar di natt aw tàngoor wala seddaay ci thermomètre noonu la suñ borom wutale ngëneel nattukaay inna akramakum inda allahi atqaykum muy taqwallah ragal yàlla sunu borom nee na nit ki mi ngi gën a moroomam ci gën koo ragal yàlla kon yàlla rek a xam ki gën moo ne diw mi naan diw duma ko may sama doom ndax lii la wala duma sëy ak moom ndax laa la am na ciw askanam walla moom ci boppam ñuy def loo xam ne ñenn ci askanu ki muy bañ jommale nañ ko seen bopp ngir bon wala ñaaw gu jëf ja ñaaw am na ñenn ci askanu ki ki muy bañ ñuy sàmmonteeg seen diine ak di bàyyi xel seen borom ci anam goo xam ne ñenn ci askanu kiy bañee wala moom ci boppam defuñu ko nit ñëpp aadama mooy seen baay xawaa mooy seen yaay moo tax sayyidina ali karamallahu wajhahu wax ne nit ñi ñoo yem ci askan annaasu min jihati tamthili akfaaw abuhumu aadamu wal ummu hawaaw kon xalaatal bu baax boo bëggee gën saxal ci ndigali suñ borom yi tey moytu ay terem bañ a sa bopp te bañ a xeeb kenn gannaaw loolu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di dénk nu gën a góorgóorlu ci aar diine ji bu baax càggante gi bari na ceetaan mi ëpp na te lii ci ñag bi la jëm lislaam dafa jaaxal nasaraan bi ba tax waxtu wu ne mi ngi def ay pexe ngir bëgg koo néewal doole yuriduuna li yutfi'u nuura allahi bi afwaahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha alkaafiruun waaye sunub tool nag sañ nanoo taxaw ne kenn du ko fi ruure li gën ci nun sunu boroom akub yónnanteem sallallahu taala wa sallam tëralal na nu ko ba noppi kon nanu gëstu seenu yoon te jéem cee jaar muy chariatul yi te moytu yoon yi nga xam ne ay mbindeef rekk yuy xeex lislaam ñoo ko tëral di ko rafetal ci suñuy gët wala ñu diñu ko imposer xool leen nasaraan bi ni mu soppee xel yi ak xalaat yi ci boppu ñenn ñi jëme leen ci lu safaanoog lislaam waxtu wu ne ñi ngi tëral yi droit ak i ngir xeex diine ji jaahil yi nga xam ne nag jànguñu seen diine ànd ceeg ñoom di leen xeexle yaakaar na ñoo ca nekk bokk yi bu nu nangu mukk kenn di nu féewale ndanu maase boole suñu bopp ba doon benn bañ a xajal seytaane sunu diggante soppante wóolonte di diisoo bañ a xeebante jàppante bu dëgër ba dara du mën a teqale bokku xalaat bokk yéene nu doon jenn jëmm joo xam ne lu metti sa moroom metti la luy sa bànneexu moroom di sa bànneex kenn ku ne di bëggal moroomam li mu bëggal boppam sa soxla moroom di sa soxla di yërëmante di dimbalante di demlante kenn bañ a gis ngëneel ci boppam ci kaw moroomam kenn ku ne la moroomam fonk mu fonkule ko ko rawatina lu mel ne ab sëriñam te bañ ko ko xeebal ndax kenn ku ne ab sëriñam toll na ko foo xam ne boo ko ko xeebalee du ngeen mën a ànd te kenn ku ne bañ a xool sikki moroomam ndax ku sikkitee ànd ak nit du ànd ak kenn ndax koo xool ci moom sikk gis ko yàlla rek a jagoo mat di moytu rambaaj ak yàq sunu deru moroom ku ñu ñëw fi yow di wax ci sa moroom ab sofaan bu ko ko may lu ko moy yéenay bokk bàkkaar ba te kuy jëli di la indil noo mën a def mu yóbbul la te nit ñi léegi dañuy denc seen fukki kilo yi ayib di weer sab liibar bala ngaa wax ci kenn lu dul noona xoolal sa bopp ba xam am nga loo bëggul kenn xamal la ko bu nu defee noonu yàlla dina sotti yërmandeem ci noonu ndax sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne aljamaatu rahma te dina nu dëgëral ba dara du nu mën a néewal doole gannaaw loolu bokk yi ma bokkal dëkk bi muy sunu dëkk bu tedd bi di Taïf te amuñu lu dul moom umpale wu leen ne gaa yi yàlla yi duñu caaxaan duñu fowant luñ def lu ne dañ ca am ndigalal seen borom wala muy lu dëppoo ngërëmal yàlla moo xam luñ jëf wala luñ wax wala luñ sos te jaam bi dina toll boromam foo xam ne lu mu laal yàlla barkeel ko muy barab bi mu daa nekk wala ndab li mu daa jëfandikoo wala sax keppaar gi mu daa toog ndax yooyu yépp sunu boroom da koy sellal barkeel ko Seydina Ali alxawaas gannaaw bi mu fi bàyyi ko ñenn ci ay taalibeem daanañ ñëw tiim ndab lim daa jëfandikoo di ko ñaan seen aajo walla ci keppaar gi mu daa toog Cheikh Abdul Wahab Ash-Sha'rani nee na ndab li wala barab bi moom ci boppam mooy xibaar sëriñ bi ne ko diw def na lii wala diw mi ngi sàkku ci yow aajo sàngam te foog naa ne sikk sàkkawu leen ne Cheikh Mouhamadul Moustapha bokk na ci gaa yi yàlla gën a gërëm ngal la kon ñiy def lu dul noona ci barabam bii bam di ko ko xibaar Cheikh Mouhamadul Moustapha yàlla da ko tànnal fii joxañ ko ko mu gënal ko fu ne mu dëlu fi moom ci boppam di fi liggéeyal borom Touba ndax lu fi mas a ñor ci mbay ca jumaay Cheikhul Khadim jëlee la jëm kon suuf si am na ngërëm mu nekkoon fi ak ay góor yàlla yoo xam ne dañoo gàddaayoon seen lépp ngir sàkku si fi yàlla ba làq ngërëmam ñu ci bari tëdd fii tey dolli ca jàmbari lislaam joo xam ne mësta jóg ci di sagal diine ji ak yoonu seexul xadim wi njariñal mbindeef yi mu doonoon kenn nattabliwu ko kiiraay li mu doonoon kenn sikku ko sellu lool tamat lim doon sagal baayam ak i maamam sax ci di liggéeyal yàlla ba làq ngërëmam mu wàcce ko ne ko nag sab añ fii ci suufas Taif nga koy tàmbalee jëfandikoo muy ku ñu amul lu dul moom Cheikh Mouhamed Mbacké Al bokk yi suuf si méritoon na xorma te ni barab di gëne ay moroomam ba boo fa defee lu baax ca la yool ba di ëpp ci boo ko defee woon ci ay moroomam noonu ñii la mbugal ma di gën a tare ci boo fa boo boo fa defee ab sofaan taggaay yu baax yi ñu mat a sagal lañ ci dëkk bi sallallahu alayhi wa sallam danoo wax ne rikk sagal leen seen waajur ya tëdd barzaq ñu ne ko sang bi lu tax nga wax loolu mu ne ndax lépp lu ngeen def ci bés bi am na malaaka mu koy yóbbu ca seeni waajur ya nekk barzaq ne ko sa doom diw moo def lii bu dee lu ñaaw mu am gàcce ci ñam tëddandool foofa ndax foofa ñépp a koy yëg bu dee lu baax mu di ko tiitaroo ci seen biir niki noonu saa bu fi kenn bàyyi ko ci seen biir jiitu ji barsàq waa barsàq kenn ku ne day ñëw di ko laaj li xew ci njabootam ñii mu naan leen sa doom diw ma ngay dimbale doomu aadama ya kii ma ngay dimbali néew ji doole ya kii ma ngay jaamu yàlla bu baax kii du tardé waxtu ci jàkk ja kii foo ko seen ma nga ca la neex yàlla bu ko defee ñii seeni waajur di leen sagoo foofa di tiitaru ca ñañ tëddandool foofa am na waajur yoo xam ne bu ñu leen joxee seen xibaar yi njaboot dañuy am gàcce rus lool foofa ndax dañ naan leen yow sa doom jël alali jàmbur rek la fa nekk kii agressé rek la fa nekk kii naan sàngara kii tox yàmba kii am naag doom diw te takku ko kii fekkees na ko ay yoon yoon ci soxnas diw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de yàlla nanu yàlla musal ci gi gàcce lii rek jar na xar sa tànku tubay ngir sag njaboot tege ci siraatal mustaqim bokk yi sëriñ bi li mu daj ci dëkkam bi daj ko ci taalibe yi mu fi àndaloon ñuy sàkku ngërëmal yàlla mérito wuñ ñu leen di gàccal mbokk yi Cheikh Moustapha ak dëkkam bi ak ñu tedd ñi fi tëdd mérito wuñ liñ fiy gis ak li ñu fiy dégg te kenn ku ne li nga war a njëkk a def sax mooy sagal sa bopp sagal sa njaboot ndax fii dara umpeetu fi te boo amul njaboot tamit ñaan nga koo am kon fexeel ba am tagg wu baax te bañ fee bàyyi lu ñuy xoolee ak di ko xeebe sa njaboot ëllëg waaye li ëpp ci responsabilité bi nag waa jur yi rekk la jur sa doom jàngaloo ko diineem yaroo ko doo xool fi muy dem ak lu muy def doo xool lu muy sol ak ñu muy àndal xooloo fu muy dugg ak heure bu muy tëdd jur sa doom mu takk soxna indi ci kër gi génn wuti lum dundali njaboot gi sa yoon nekkut ci soxna si doo ko digal doo ko tere heure bu ko neex génn heure bu ko neex ñëw ku ko neex am lan njaboot gu jigéen gi ñu bàyyi leen ci li leen neex fu leen neex dem lu leen neex sol ku leen neex am lan nee ñu ëllëg doom dina layoog bàyyam ci turuwum ko tudde kon rawatina jikko ak aada jum seetaan ñu fekk ko kon waajur yi ñoo ngi leen di dénk ngeen bàyyi xel njaboot gi sàmmonteeg àq ji dox seen diggante ak ñoom mu yar leen ci sunna ak ak ak taalube saytu leen ci yàquteeg jamono ji te def seen yitte ci ñoom bu baax a baax te bañ a yokkat ndax yàqkat yi bari nañ te seeni jumtukaay takku na te am doole kon bu ngeen sàgganee tuuti rek du ngeen am la leen gënal ci ñoom te kon di ngeen ko layoog ñoom ëllëg te daañu leen yey te ñi ci nekk ci lu dul noona na ngeen leen ci jéem a génne lu ngeen man te bañ leen di mere ak a bunduxatal ndax ki nekk cib sofaan mi ngi mel ne ab malaat te malade bi bu ko docteur bi deful ndànk defal ko dalal xelam xanaa di ko forcer ak a fasal kanam day yokk tawatam rek yéen ndaw ñi li nu leen di njëkk a dénk mooy ngeen topp ndigal seeni waajur taweg leen te xam ne seen jàmmi tey ak ëllëg rek lañ leen bëggal ngeen xam ne kenn du jur di bañ seen waajur yi buñ sañoon yéen a fiy gën yéen a fiy raw kon lu ñu leen wax seen njariñal bopp rek la yéen njaboot gi te bu ñu leen gërëmut yàlla du leen gërëm wala ayaadu billah noo ngi leen di dénk ngeen xam ne lu dul yàlla amut solo ngeen xam ne lu dul jaamu yàlla amut solo ngeen xam ne lu dul taalibe amut solo te lu dul yi jërte roye nit kon xam leen ne yii xew ci ndaw yi léegi ñu di ko roy da leen di tarleel rek te bàkkaar yi neen la muy coliin yi doxin wi jëfiin wi te ñi ngeen koy roye yéen a leen gën fopp muy nasaraan bi ndax ay doomi jullit ngeen te ñoom nasaraan yi seen bopp ñàkk xam li ngeen nekk moo tee ñëw di leen roy yéen ndax li ngeen doon ak li ngeen nekk moo gën fopp kon bu leen ñàkk fulla ak fayda bay roy lu leen amalul njariñ xanaa xamu leen am nasaraan ci boppam bu ñuy wax Molière moo wax ne quand sur quelqu'un on prétend se régler c'est dans le bon sens qu'il lui faut mu ne bu fekkee da ngay roy nit ki da nga koo war a roy ca la la amal njariñ waaye du caagee ni da nga koy roy bay roy ay sikkam am nasaraan dee wax loolu bu ngeen defut kon lii nasaraan bi wax waru leen a def lu ko yées te ngeen moytu lépp lu leen amul njariñ muy tux rawatina yàmba ak naan sàngara ak jëf yépp yi nga xam ne yellut ci dëkk bi te yàlla gërëmu ko te borom dëkk bi du ci bég te ngeen di xalaat ci seen ëllëg muy seen avenir te di ci bàyyi xel bu baax ngeen xalaat ne yéen yéenay ëllëgi dëkk bi yéenay yaakaari mag ñi ëllëg kon noo ngi leen di dénk ngeen waajal seen bopp ci xam-xam ak ci yar te xam-xam dara gënu ci xam-xamu diine ngeen jiital ko ci seen lépp bu ngeen ko defee dëkk bi dina doon royukaay ëllëg da ngeen noppal seen bopp noppal waajur yi sagal cheikh Mouhamadul Moustapha sagal Serigne Cheikh sagal cheikh Mouhamad Mbacke da ngeen sagal tamit sunu kilifa yii sunu borom teg sunu kanam muy Serigne Abdul Fattah ak Serigne Moustapha ndax ku ci sañoon ci ñoom du gis mukk baa muy dégg ak njabootam ci lu dul noona ni ngeen di sagoo seenub sëriñ noo nii la sëriñ bi di leen sagoo ci buñ leen di seen ak a dégg ci la neex yàlla bokk yu jigéen yi noo ngi leen di dénk ngeen sàmmoonteeg ndigali suñu borom yi ak xorme yi dëkk bi ci seenu colin ak seenu doxaliin di sol luy muur seen awra yépp te du màndargaal seen benn cër tey moytu jaxasoo bi ak góor yi leen araam yi leen araamut ndax seytaane dafa bari doole lool te yàkkamtiwul dara te du yokkat te ngeen xam ne bànneexu moy gàtt na lool te mbugal ma ca suñ borom di tege metti na te yàgg di leen dénk tamit ngeen wàññi po mi caaxaan yi yàq gi ak puukaréew yi ci xew yi bokki dëkkandoo yi sunu dëkk bi nu amul lu dul moom bu yàqoo nun la yàqul te loolooy sunu gàcca bu jagee nun la jagal te loolooy sunub sag kon nanu maase raxas xol yi ba mu set kenn ku ne tàbbal moroomam ci xolam te def ko ne boppam di laabiirante di wonantew yoon kenn ku ne la mu tanee moroomam mu jàppale ko ca xale yi weg mag ñi te topp ci seen gannaaw mag ñi yërëm ndaw ñi te doon ay royukaay bu ñu leen gis mukk baa ñu leen dégg ci li neexul yàlla kenn ku ne jiital intérêt mbooloo mi ci intérêt boppam te bàyyi xiiro bi ak ŋaayoo bi ak yàqantey der te xam ne ay bokk lañ yu bokk loo xam ne duñ ko seddoo mukk kon li nu war mooy bennale suñu bopp te te jàmm ñi yàlla def ñu jiite ñu tamit ci wàllu aada ci dëkk bi nu weg leen te wormaal leen bañ leen a fakkastal ñoom it ñu xam ne gënuñu ñiñ jiite gënuñu leen a sañ tamit ci liñ leen jiite muy dëkk bi kon na leen soxla nit ñi rekk ñor nañuy nangoo xiif ngir nit ñi di lekk nañuy nangoo mar ngir nit ñi di naan nañuy nangoo rafle ngir nit ñi di wodd lii mooy jikkoy njiit bokki julli di bokki taalibe bokki dëkkandooy adduna tàggoon a war nu gannaaw di dem te mënunoo daw ba dab ko kon buñ ci waru alaxira dëngmal nanu te nun mën a def mu agsi kon nanu ko waajal nanu doon ay jullit yu wér te sax ci jaamu yàlla doon ay taalibe yu dëggal te sax ci ndigal Sëriñ Tuubaa di moytu ay terem fonk suñuy kilifa yi nu suñu borom booleel muy sëriñ Abdul Fatah ak sëriñ Moustapha Mohamed te topp ci seen gannaaw te bañ leen a yamaleeg dara sagal Cheikh Mouhamadou Moussa ci dëkkam bi te sagal suñuy waajur ci sunu nekkin fii ci àdduna wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh